pour ngeen roofante fi ay carottes góor jigéen ñu koo toppi nee naa leen teel leen a tàccu teel leen a fajaru teel leen a juutu yàppaa nelaw waxoon naa leen ko de newoon naa leen dimanche le way balaa gaa yi jóg danaa jóg siyone dëkk bi ni ko Kumba Kayal doon defe ni ko maam Kumba Bang doon defe ni ko jinne yi Sénégal yi yëpp di defee jandeer dëkk bi wër xool ku fi juutu ku ne ñu tellaat duut baaraam ñi ci feeñ nak te feeñal seen bop du problème bi problème bi moy ñi bëgg ngarale seen tour yi faw mu tépé teppeeku tarat parce que duñ leen may dara kenn mënatu fee nak kèn ñëpp ay sét mbélé la lan te ñëpp yew loi lak français nañ ko défé ni ak dafa sans civil ak yoy ay mbam àll ngeen yéen fi voter loi wu ku toj dara loi terrorisme yéen ko fi voter pour sam seeni alal voter len criminalisation ngor jigen Macky Sall yaay seefu ngor jigen yi lila intéressé yépp pour ñu toj pour ñu xex pour ñu lak seen kër yi da ngeen créer ay loi garder seen immeuble garder seen bien préparer seen sen oto ku len laal ngeen ne da ngeen koy tëj à vie ba pare nak bëgg tok di xotti seen tour di ci rof ay carotte di rof ay koy ci bir di raxas ay douce di pousse ay day ñu ngeen ne du ngeen ko yena bonne yéen a bon lii sénégalais bu nelaw doo gor lii alaa nelaw nelaw amu ci aca jukki nañ jukki nañ jukki nañ jukki nañ jukki jukki dugal baag bi ci teen bi xool ñi yor diine fa ndox doon taaku fa dem fekk fa tepp-tepp maag yéen du sedd du mën a yomb ci yenn waaw du yomb de wallaahi daal di jox ay ndigal état yi ne leen nag fexe leen ba góor jigéen yi dëkk ci seeni réew sañ-sañ yi leen nit ñi xañ nañ leen ko delloo bu ñu waree doon imam nañ ko doon am nañ ci sañ-sañ bu ñu waree nekk président nañ ko nekk bu ñu waree nekk délégué de quartier nañ ko nekk loolu da ngeen koy tabax ci ay loi loolu mooy agenda LGBT mooy naalu LGBT bi na de na de état yu bare nangu nañ ko donte état yu bare bañ nañ ko bokk na ci état yi ko bañ Ghana gi sunu wet Ghana bokk na ci état yu ko bañ Mauritanie bokk na ci état yu ko bañ Nigéria tudduma ay dëkk tubaab sax mënoon naa tudd ay Russie mais xëy na mën nañu wax ne daa sori waaw léegi lu Ghana mën a bañ Gambie bañoon ko ca jamono Yaya Jammeh Mauritanie di ko bañ ñun Sénégal ñu ne mënuñu koo bañ ndax la bu ngeen voté loi bi loi bi dafa sensible sensibleul dangay wax ay kàccoor ñoo ci nekk bañ koo voté parce que am nañu intérêt ci góor jigéen ñi. waaw ay doomaram lañ. Eh, Sénégal nag agenda bi may wax état Sénégal mi ngi ko yore di ko dérouler di ko jaarale ci ay loi ak i pexe depuis depuis 2016. loolu moo waral ngeen di gis fii ci réew mi. ngeen xëy rek ñu dind suñu carte d'identité yi amatul turu ndey ak baay te kenn laajul lu tax man dama wax ni suñu état bi am na problème waaye ñun ñoo ëpp problème ñëpp identification kay buñ koy wax mais ndey ak baay war a jiitu sax diw mooy doomu diw ak diw loolu lañu ñu mës xam ci àddina mais ñu xëy benn bés rek ñu jël décision. suñu carte d'identité yi ñu dindi suñu turu ndey ak suñu turu baay ne yow amatoo ndey ak baay demal kenn posé wul question bi lu tax ñu dindi ko mais ñun dañu am problème dañu waroon exiger état bi ne ko yow ndey ak baay yi nga dindi pour lan la leeralal ñu lu tax nga dindi ndey ak baay lan la identification lañu ñu soxla lu ñu gën a firndeel sa ndey ak sa baay mu gën a leer benn defuñu ko de ñu bàyyi ko mu jàll mu demaat ba ci kanam. mu créer benn référendum référendum bi bi mu ko defee lan la ca def mu def ci les nouveaux droits fàttalikul 2011 ca nation Unies les droits nouveaux yi nu voté loon góor jigéen ñi ne nañu leen utal ay àq ak yelleef yu bees 2011 lañ ko defoon 2016 ñu gis état Sénégal reprendre ko ci suñu constitution ñu ne mais attention gars yi ñu ngi jëli ndigal ya kon yemuñu ca ñu def remaniement li nu njëkk a def mooy ñu créer ministère bu tudd genre waxoon naa la fi transgenre sànq ñi nga xam ne dañu dem ba yëg ne bëggatuñoo doon góor te ay góor la leen yàlla bindee ñu ne bëggatuñu doon góor ñu dindi seen awra nekk jigéen wala jigéen gu albatiku nekk góor wuti jabaru jigéen di sëy ak moom wala muy sëy ak xaj loolu moo ñu indi le terme genre parce que sexe ñaar dong la ci yàlla bind masculin féminin jeex genre nag mën nga nekk la neex soo nekkee góor jigéen lesbien jigéen ak jigéen buy dañu lay defal sa permis yéen ñi am permis ñëpp ñu defal fa genre genre masculin genre M la ñuy def genre féminin genre F la def

ay L ak Z ak teew ak X ak Y ak Z zéro gis nga ndongo daara yi gis nga bu ngeen jógul imam bii gis nga bu ngeen jógul fexe lëkkaloo gars yi xamante ñu xam mbir yi lan ak lan lañuy la ñuy nasaka nocc ay doomaraam ñoo fi nekk ñoo xam ne nee nañ université lañ jaar de ñooy boroom xam-xam yi de doom rami tapet nañu bon bon go xamne lu bon lu ne dañu dem transport ñu ko transporté ñu ko lu bax lu ne doom kram yi exporté ko dëkk bi génnee ko yobbu ko île des Caïmans doom kram yi L yek Z yek zar yek G yek yu bon yi ñu transporté ko tal ñu andil ñu ko nañ leen dem di ngeen am ay mbeur yu bon de di ngeen am ay nervi yu bon di ngeen am ay imam yu xaje yu bon waye fa ndox don ta bo fa demee fek fa tepp tepp dinañ am ay imam yu bax fa ngeen jëlee xaj yu bon yi dinañ fa am ay nit yu wér muy mbeuri nerve yu bon yi ngeen yor dinañ yor nerve yu baax yo xamne dinañ taxaw ken defam tek yeen ba mu saf du da di jang bon jox leen doole jox leen alal taral leen amu leen lo leen def lepp lu baax ci ñun ngeen exporté ko gënne ko dëkk bi lepp lu bon ci ñun ngeen transporté ko indi ci biir dëkk bi doomu xaram yi yéen bon te bu ngeen jógee di xap xap ak sénégalaw bu ngeen jógee di xap xap di reey reey ko ngandar ngandalu ndekete ku ci rek sa jaafu bu nu yëpp rocceeku na jaafu taat karaw taat yi sew yooyu yu weex yi rocc ngeen day lépp seen taat di didim na ba mu kenn xamul la lay niru yéen janju janjuy simmeeku sax boo moytul seen turu taat yaa ngi simmeeku cim yéen a bon wal xas nañ àggal dama leen may dara newoon naa leen du ma nelaw ci yenn laay wird ci ci yéen laay salaatul fatiha si yéen laay xasaayit si yéen laay yéen naafila laay def ak yéen naafila fajar fajar lañ jëm da ngeen di jaay bon rek góor jigéen yi imbécile yi jox leen. yow loo doon rek mën nga xaj ci réew mi genre plus góor jigéen genre plus jigéen ak jigéen genre plus kuy sëy ak néew genre gis nga genre dafa yaatu. mais sexe mënoo wax ne sexe nangam. ñaari sexe rek a am. moo yooyu la ñu indi dugal ko suñu biir constitution. utal que ministère ministère de la femme et de la famille et du genre loolu mooy agenda bi état bi yor di ko doxal. pour protéger góor jigéen rek. permis yu bëri genre lañ fa def bi coow lii baree ba wër àddina lañu ñu commencé di dindiwaat genre di dugalaat sexe parce que yëg nañ ne nit ñaa ngi xam li xew ñi mujjee am permis depuis mois de mars passé jëm si nii ñëpp sexe lañ leen commencé defalaat ñu ngi commencé roccewaat genre bi moo tax combat bi bu ko kenn arrêté. arrêté. am na mbokk yi laaj naan ana góor jigéen ñi gis naa benn mbokk naan ana góor jigéen ñi ngeen di xeex ana xam nga loolu yëfu dof la. code pénal bi ñu changé daw jéeg gisu leen fa ay ay loi terrorisme fii loi apologie terrorisme mais est-ce que terrorisme am na Sénégal ah léegi lan moo tax ñu defar ay loi pour terrorisme. loi terrorisme bi ñoom bañ koy defar imam c'était juste pour que comme dañ doon dégg ñu ne dañuy taali seen kër yi dañ doon réserver seen matériel pour bañ ko laal seen alal yi seen intérêt yi doomu xaram yi seen immeuble yi ñu tabax. li ñu sàcc ci ñun banque yi ñu tabax doomu xaraam yi seen magasin yi ñu tabax Auchan yeeg ñoom it seen yooyu ñu ne léegi dañuy fexe ba ku toj seen oto ku toj seen boutique ku toj seen kër ñu accuser la comme roi terrorisme boobu ñoom lañ doon seen bopp lañ doon défendre tey nag nee nañ leen ñun loi góor jigéen lañ bëgg ngeen voté yoo ñu ne ñu déedéet ñu ne ñu déedéet parce que lu tax ngeen ne déedéet amul layam layam yi amul wiiri parce que ay góor jigéen ngeen yen ay lesbian ngeen yen ay bisexuel ngeen yéen ay xaj ngeen ay xaj xajub kat, xaja leen gën sax parce que xaj dina def dara ci kër waye yéen da ngeen di rocc li bax ci kër gi yobbu lu war gental kër rek ngeen andi ci biir doomu kharam yi Macky Sall ak délégation ngeen ne bu ko kenn wax ñi wax mu naan li ci mitti moy jël jël ay dañ koy war kañ dinañ ko war war ku ñëpp lan mo tax Sénégal changer code pénal bi di teurel ay loi yi condamner terrorisme te terrorisme amu fi parce que dégg na ko ci biti rek mu ne xaaral ma gaaw ñàkk réew mi balaa terroriste yee dugg fii waaw ñu ne la góor jigéen ñaa ngi fi doo ko ñàkk nga ne noonoo ga déedéet imam imam foofu demeewul noonu foofu demeewul noonu de ñun ay terroriste ñoo ñu yor parce que terroriste weesuwul ay nit am pétrole am gaz am zircon am or am lépp nga xañ leen ko ba pare wëlbatiku naan da ngay ñàkk yow kañ yaay terroriste bi ñoom ñooy terroriste si indil ñu góor jigéen terroriste weesuwul loolu ñoom ñooy terroriste seen bopp lañ doon ñag ñaguñu parce que nit ñaa koy wax ci àll bi de xam nañ ne amu fii mais problème bi seen bopp la ñuy ñag jërëjëf imaam gëstu leen rek rax leen ci mbir mi dugg leen ci biir criminaliser nguur jigéen nga xam ne moom li mu def moo raw rey nit ab nation wu lëmm la labal lu toll ni président de la république naan góor jigéen rek ñu naan dañ koy criminaliser xam ngeen criminaliser mooy lan mooy dañu koy teg daan boo xam ne comme ku rey nit ma ne ko yow xamoo ne yow góor jigéen li mu def ëpp na rey nit yow yàlla ne nañ ko rey yonent bi ne nañ ko rey yow nga taxaw di naqarlu loolu ba pare naan xeexuma dooleelu ma góor jigéen foog ñu nangu ne réew mi bu ñu seetaanee tuuti ñu xef góor jigéen fii ëpp baat kilifa gum mën a doon te loolu tàmbali na bokk na ci li Sénégal di ndamoo bu demee bitim réew réunion yam fay def ak ñoom mooy fii ci réew mi benn góor jigéen du fi dugg kaso loolu Ismaïla Madior Fall mii justice bi moom lañ ko dénkoon moo ko waxee bitim réew moo dem ba Nations Unies ne leen ñun suñuy loi du tere ngóor jigéen Ismaïla Madior Fall la ko wax lii bu laajoon vidéo dañ koy génne Sénégal délégation bu mu yebal bitim réew bu demee lu mu leen di wax ñun réew mu tolérant la ñu du ñu xeex góor jigéen benn góor jigéen du dugg kaso te loolu dëgg la fii Sénégal police dana def effort ba jàpp góor jigéen bu yeggee ñu ne leen delluwaat leen parce que amul loi buy tere góor jigéen fii ci réew kon ñi ngi ñaan na ci sénégalais yépp taxaw looloo tax ànd sàmm jikko yi jël boobu komba ne du seetaan mukk ñu jël agenda bu bon boobu installé ko ci suñu institution yépp su ëllëgee ab góor jigéen di daagu ci sa kër te doo ca mën dara te koo koy ndeyu ñaaw téef yi est-ce que xam ngeen ne góor jigéen day wàllaate gis nga ni ngas di wàllaate laaj ko Oustaz Abdou Aziz Mbuub xam na ci dara ba nga ca réew nee na ni ngas di wàllaatee koronaa di ko wàllaatee nee na ngóor jigéen a ko gaaw a wàllaatee nee na amal benn góor jigéen indi ci koñ bi rek balaa déwoon mu wàll fi ay xale yu góor yu baree bare danañ nekk góor jigéen mbonuk caay-caay nag ci ñoom la yam nee na fee ñu nekk dañu lay neexal pour ñu sëy ak yow soo bañee dañu lay dàq mu ne man sama bët moo ma may ab góor jigéen dàqi góor bëgg sëy ak moom mu lànk mu di ko dàq ba mu dugg ci kër gi mu topp ne par force dana ko tëddee bul ñaan yàlla dajeeg ñoom ñu téye as gor toroxal ko sëy ak moom te du ci man dara te luwaa moo leen koy may kon li gën a yomb mooy bu dee ñun bugguñu góor jigéen te loolu moo am état bi nee na buggul góor jigéen waaw ñu ne ko utal loi bu koy tere mu ne noonu fi ak maa ngi fi du am te bés bu ne mu voté ay loi criminaliser vol de bétail sàcc xar sàcc xar président defar benn projet de loi criminaliser ne ku sàcc xar dañ la war a teg daan bu toll ni ku rey nit loolu président voté na ko fii ci assemblée wala boog jox na leen ndigal ñu voté ko xam ngeen suñu assemblée yi ni ñuy doxee mooy mooy joxe ndigal criminaliser sàcc xar sàcc xar mu ne na ngeen ko criminaliser mu pare ñu ne ko criminaliser góor jigéen mu ne noonu loolu day ëpp teg góor jigéen daan comme ku rey nit ba pare moo teg sàcc yi daanu rey nit waaw santiment bi mu am ci góor jigéen ñi te amu ko ci sàcc yi lu ko waral. parce que koy bay bale duus. lu tax mu am sentiment. parce que koy bay bale duus. wala ñu di ko baleel duusam. rek dong moo dal Macky leneen dal ko lu dul koy buy bale duus ñu di ko baleel tuunam donc ça le seul sentiment y a autre voilà doo maram la. góor jigéen ñi bu buggul ñu teg leen daan yu metti te amul santiment boobu ci sàcc yi te sàcc yooyu ay sénégalais lañ te amaan na góor jigéen bi muy protéger sax moom du sénégalais kon caaxaan baaxul ñoom dañu aw ci yoonu légalisé ko amul yoon bu koy tere fii ci réew mi amul yoon buy tere ngóor jigéen donte amul bu koy digle amul lu ko digle amul lu ko tere góor jigéen ku mu neexoon nga def ko fii ci réew mi benn loi mënu la jàpp gendarmerie bu la jàppee téye it boo demee juge bi da lay bàyyi waat nga dellu looloo tax ànd sàmm jikko yi ne nañu exiger ñu criminaliser ak nguur jigéen affaire bi leer benn yoon yóbbu nañ ko assemblée nag ñoom ñu bloqué loi bi bàyyi ko ca bureau ba président moo génne di leen layal ci ko xam séparation de pouvoir moom waru ci woon a wax sax réew mu am démocratie assemblée président waru fa am influence bu mu leen di orienter xool leen fii ak xool leen fa ñoom it ñu am waye dugg toll ni naan waa duñ ko jël parce que président nee na woon amu fi loi boobu ngeen dégg ñu leen koy wax article trois cent dix neuf condamné na góor jigéen loolu amul c'est faux acte contre nature la wax acte contre nature nag góor jigéen ci la bokkoon mais OMS ñoo ne góor jigéen mënatu cee bokk parce que nañ ko ci génne kooku ab gisin la rek ba tax na état yépp ko ci génne ñun nag loolu lañ bëgg ñu def ko ñu ngi ñaan Sénégal yépp ñu def ko seen yëfu bopp liñ ciy rax naan ay dañuy politique ak duñu ñu politique ma ne ñun même bu fekkoon dañuy politique sax waaw léegi après xanaa politicien buggul lu baax waaw léegi yow bu dee da ngay politique rek amoo droit xeex góor jigéen kon politicien bon na luwaa yenu fay wote ay politiciens ñoo koy voté te luwaa yaa ngay jàll lu wu góor jigéen nag lay wu ne ña ngi ko koy wutal yal na leen yàlla yërëm waaye daal bu ñu taxawul takku taxaw temm réew mi danañ ko def réewum góor jigéen réewum faramason tàmbali nañ fu ñu fekk sëriñu daara toroxal fu ñu fekk doomu daara toroxal fu ñu fekk góor jigéen teral ca kaw loolu mënul wéy wax naa sànq ne nag ñi ngi recruter ay imam di leen defloo loo tournée nationale pour ñu léere nit ñi ne leen woy jarul def benn loi parce que am na lu ko fiy tere Moustapha Gueye fii ban loi lañ fi yeesalul ba yokku daan loi yëpp la ñu yeesal yokk seeni daan lu tax bu góor jigéen kenn du ko yeesal mu yokku daanam yenn doomu soxna yi nag am na ñu ñuy tuddee ay doomu soxna am naa sam benn xarit bu baax sëñ Pape Hann nee na loolu mooy saaga wi gën a rëy ci Sénégal tiim ñëpp ne leen man doomu soxna laa léegi ñi ci ay doomu lan lañ. lañ ñu def ay doomu. doomu sëriñ yooyu nga xam ne seen la ñu leen xamoon ci njub ci yiw rek la leen xamoon ñi ngi taxaw porté combat wu nee nañu dañuy jàkkaarloog ànd sàmm jikko yi pour aar état bi ak ñoo ñàkk jom ak ñoo ñàkk jom. am baay ju baax mu def ci diine lu ñépp xam yow amoo dara looy def mooy nga xëy di defendre ay góor jigéen naan jaral na ma fay ci télé yi ñu jox ma ma waxtaan ci pour defendre ne lii ngeen di xeex jaru ko am na fi ba noppi dem na ba yegg di méngale xeex bi ak fii am na fi ñuy takk croix waa kiy takk croix yow lu sa yoon yonent dëkkul woon ak ñuy takk croix mu ne lu tax ñée ngi takk croix def lu leen neex dem na bay jaawale plus ak croix nee na booy calculer nee na booy calculer soo defee soo bëggee def deux plus deux lan ngay bind deux def benn croix lii musiba la yow xàmmee woo sax plus ak croix léegi pour défendre góor jigéen rek su ko defee ñooñu nga xam ne nag ay nagu sarax lañu yuxrijul mayit min al xay yàlla dana fekk luy dund mu génnee ca lu dee doomu nit ñu baax ñooñu nag la tàmbali recruter pour wax loo leen waaye yaakaar nañ ne sénégalais yi yeewu nañu yeewu goo xam ne ku leen bëgg a woyafalal góor jigéen yow la ñuy woyafal yow waaye du lu woyof su ko defee dimanche bii di ñëw la vingt inchaa allahu taala dañu bëgg ñëpp ñëw daje Colobane ca place de la nation 9 ci suba ba 14 ci ngoon fa la woo ñëpp pour ñu ñëw won état bi ne ko dañu bëgg nga utal ñu loi buy tere ngóor jigéen fii ci réew mi loolu bu ko sénégalais yi taxawul takku taxaw fas ko du ko def waaye buñ ci wanee fulla ak fayda ak taxaw dina ko def ala ñu ax mel ni naa imaam yegsi na ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñaanal imaam moo leen

pour lan même boo nekkul góor jigéen da ngay coloré góor jigéen ànd sàmm jóg ne loolu ci amee diine islam diine chrétien animiste yi sax bëgguñu góor jigéen amul benn diine bu nekk Sénégal bu accepté góor jigéen Macky Sall nee na nag bu ko criminalisé waaye criminalisé na viol te viol lu muy mën mën góor jigéen su ko doon ci askan waaye criminalisé na vol de bétail mooy sàcc xar ak nag te loolu lu muy mën mën góor jigéen moo ko gën a kon man lépp lu may wax rek maa ngi sensibiliser la jeunesse dimanche le 20 février à partir de 10 heures na ñëpp ñëw place de la nation. ndax ñun ñu ko fekkee yëpp bu liggéey yàlla dinañu laaj. Macky Sall ak gouvernement ak nouvel ordre mondial ak Macron ak ah, waa LGBT bi ñu bëggee daganal góor jigéen ci àdduna bi yow ban position nga si amoon muy yow muy man muy képp ku may déglu la nga xam ne le 20 février. briefing musical tuuti ñu continuer waat ndax man li ma leen waxoon rek damay naafi la seen kaw damay toog seen kaw di wird ba fajar ngóor jigéen moom dama koy tàmbali aca briefing briefing briefing surtout la jeunesse bu leen fàtte ne yéen jeunesse bi ba Sénégal doone Sénégal ba tey torox tàngee am yéen la toujours dañ leen di nax ci pecc ak po lu leen di lor dañuy tëju ci bureau yi nas ko buñ paree wala ngaanal ko mu dugg seen biir kër yi lépp luy seen njëriñ ñu xañ leen ko ngele gone yi ngele la jeunesse mu di marchand ambulant nga di borom quincaillerie ngay menuisier métallique ngay menuisier bois ngay maçon ngay mool ngay béykat ngay sàmmkat ngay forkatu butéel ci mbalit ngay koo xam ne da ngay dem wuti sa 15 dugg ci ruq génn leen am na loo xam ne buñ taxawee xeex ko yàlla dimbali ñu musiba bi nga xam ne moo ñu topp ñi ñu ko toj ne ci réew mi duñu ay gan juddoo ci ñun yaroo ci ñun chaque jour bés bu yàlla sàkk ñu yor seeni paaka nat fas yéene koo nas suñu yaram yi di ko rocc ndànk-ndànk yor seeni raakool di ko nas di ko nas di ko nas ba mu mat ba yegg fa deret jane di ko muucu tuuti par tuuti ba ci koo dëkkal ci kër mu fas yéene nekk ak yéen ci biir secteur bi ñu denk ko alalu askan mu ne duraam alalu askan wi wala askan wi yépp yaakar ci mom dong ñu ñëw jox ko ben intérêt personnel mu jaay askan wi yépp askan wi yeen jeunesse bi loolu ñun dong ñoko mëna xex ñun ndaw yi ñun ñi nga xamné ngangka avenir mu ngi ci kanam jëm a Dangkoi ñi nga xamné dañoo tok ngank aduna yenu ko ta aduna kenn duko yenu koy tek ci suuf dox ci kaw aduna kenn duko day dis aduna dang koy wacce tek ci suuf dox ci kawam ku ko mës yéen dang ko fi ba dem ken amu fi dara ken mo fi dara ken matlew fi dara ken desu fek dara ba faw kon la jeunesse jàpp len ne football bi neex na ñu wolen yeen ñepp ngeen genn ñu ne len coupe ngeen gagné bu ngeen paré yeen nga ci kër ga yeen nga ci taatu garab ya yeen nga ci buntu plage ya yeen nga ci fañuy wote yi yeen nga ci fañuy carte xaalis yéen iya ngi ci fagnuy footballé ya, petit camp yéen iya ngi ci yéen iya ngi ci yéen ngi ci fàtte nañu len pare nañ ci feetu nañu ki yéen pare nañ ci yéen hôpital amu ko njang mu doy amu ko mitina avenir bi tarna say bu ngeen ba nar jubal metti ci ngelay guna yi lamb ji balen ko bayi len football bi bayi len musique bi bayi len concert te génn àndandoo don dank mas te dem ci place de l'Obélisque may wax ne yeen ñi nga xamne yeen jité a place de l'Obélisque muy ababakar mu muy yeen imam yi nangu leen takk rib ne politique ngeen di def parce que li ngeen di xex politique ko fi tek te ñay politique duñu way ñay politique ñoy and ak yeen këri Serigne Touba te do len deg ñu xassaye buñu ñu ci assemblée ba ñay politique ñoy and ak yeen ci kër Alaaji malik te do len deg ñu yëkëti ay ay ay ay ifirli umat yi ñay politique ñooy ànd ak yéen fu ne bu ngeen wootee juma ñooy ànd ak yéen fu ne te seen way yooyu ngeen di way ci suufu baas yi kenn du ko ci tudd ci biir assemblée nationale te ñu ngi leen di nasal ay loi yoo xamante ni saa bu ngeen jógee yéen a ciy sonn seen doom yi sonn ci ngeen daw ci daw buy bëgg a dee leen laaj ñu bañ kon faw ngeen takk rib ci politique bi tax l'islam day l'islam doon nañu benn di julli nëbb doon ñaar di julli nëbb doon ñett di julli nëbb ba mbolo taxawé dañu genn wane sen tësal sen julli kon su ngeen di wo mbolo deju bu mbolo maté def len pa def len pa kat pa du tok di def ay communiquer ay wax ku wax jox sa morom ñu mel ni ñuy tag dëj wala ñuy tag lire bu garé ci yoy amu fi dé tok len xol bu nombre maté genn len def pa, sénégalais ngeen ñom ay sénégalais lañ seeni kat x 4 la ñuy taal tali daw dem fiñ bëgg Yena soxla tay su mak mbolo maté né leen leen dañuy dox dañuy rombu RTS am ngeen droit dem ba juma Seydou Nourou Tall am ngeen juma am ngeen droit dem ba place de l'indépendance bu mbolo bi maté rek daf leen djégo il faut ngeen provoquer parce que nak ñi momu ñu dé minorité bu ndaw tuba pi né ñom seen dëkk ngay sénégalais ngay sëriñ ngay khutbu ngay setu alaji malik ngay setu mam borom Touba ko meuna ne ak liñu ngati ci ñun yépp bu ngeen fi ñëwee ñemewul ngeen fee def ñaari jabar ñom doomu xaram yoyu nek fofu voté loi wu góor jigen fii buñ fi ñëwee ñemewuñ fee tak fi ñaari jabar muy Macky Sall ak Amadou Ali Nguy Ndiaye ak doomu xaram yi Antoine ak tailleur de la constitution ñom ñëpp doomu xaram yi kenn ñemewu fee ñëw fi ci tubaab yi ne da ngay tak ñaari jabar yéen ñu ne leen jigen ngeen d'accord góor jigéen doomu xaram yi yéen a bon faw nag ngeen provoqué yéen imam yi provoqué su ngeen ci paree nag bu leen laaj leen assemblée te bu leen beru Ababacar Mbuub Cheikh Omar Diagne ay nandite ngeen xoolal àdduna politique la ba keroog yomal xëyam politique la bu ngeen politiqueul ñu ngi politique di nas seeni loi bu ngeen politiquee ñu ngi politique di nas seeni loi kaafuñu ci caaxaanuñ ci foowuñu ci la def danañ ko def para dem teg seeni ricles naan tux seeni yàmba juutalante seeni tuun nasante seeni bun léegi yemaleetuñ ko ci ñoom dañ ko bëgg a dugal suñu doom yi kon lii dafa jar ñu di ci wird di ci wax di ci dafa jar ñu jixaat lii dafa jar ñu kii kenn warta nelaw kenn warta nelaw